bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi wa kafa wasalaamun ala ibadihi alladina istafa assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi di delloo njukkal a cheikh mohammadun il murtada radiallahu anhu wa ardah noo ngi leen di nuyu di leen siyaare di ñaanal ñëpp mucc ak xéewal nu bëgg a tàmbali nag tey jotaay tontu laaj yi nu fas yéene amal ci jotaay bii muy delloo njukkal tey kon nu fas yéene tontu ci fukki laaj laaj bu njëkk bi day wax ne ñi nga xam ne dañuy liggéey doon ay fonctionnaire tey leb ci banque yi te bu ñuy fay di fay lu ëpp lañ leboon loolu nan mooy àtteem euh, bor moom bu fekkee biñ koy leble kiy lebak ki koy lebal dañoo déggoo ci ne bu fay jotee day fay lu ëpp lim leboon lu ci ëpp rek lu mu tuut tuut loolu dañ naan riba la moo xam nitay leb ci nit wala nit di leb ci ab kuréel lu mel ne banque kon bor bi moom moo xam diggante ñaari nit la wala diggante euh, nit ak kuréel la wala diggante ñaari kuréel la bor bi daal bu fekkee biñ koy leb dañoo déggoo ci ne bu ñuy fay danañ fay lu ëpp lañ leboon rek lu ci ëpp lum tuut tuut tuut riba la te riba nag daganut yàlla da ko aayal lool lool lool tëkkoo ci kon lu ñu tere la lool àddina nag ni mu tëdde fi mu ne nii taxee na capitalisme moo ko andi mooy dem nañ ba li ñuy tuddee fonctionnaire wala sax salarié rek mooy kuy liggéey ñu di ko fay ñu dul ña ca féete kaw lool lool euh, daanaka ñu am liñ munta ñàkk te lebuñ du leen yomb mooy ñu mën am fuñ dëkk mën am lu leen di indee ko yóbbu ak ju mel noonu fi yëg am lool du leen yomb ndax salarié li muy am ñu di ko fu fay wu ne wala ay bis gu ne day yem rek ci yitteem yi teew loolu moo tax système capitalisme moo andi salarié daanaka du mën a ñàkk a leb te leb itam banques yi ñoo ko koy mënal te banques yi noonu lañuy doxee moo tax léeg-léeg ñoom am ci ko àgg foo xam ne ñàkk pexe lañ koy mën a jàppe du mel ne ku demoon ba war a am kër ndax am na njaboot gu tàmbale limu te mu war a am kër gu moomal boppam Euh, ndax location moom itam day diis ci moom kooka lépp ngir defar kër mënees naa jàpp ne kon am kër ci moom ci jamono yooyu day lu munta ñàkk te yitte ju munta ñàkk joo xam ne bu amul rek ak dundam day sooxe yooyu mooy yitte yu mag yi nga xam ne muy nit fu mu dëkk lu mu lekk lu mu sol lu mu fajoo euh, yooyu nga xam ne ay yittey nit la yu munta ñàkk yooyu ku ci dem ba am ci lu taxaw lool munta ñàkk faju bu fajuwut rek ak dundam sooxe sooxe gu metti te amut num ko mëna fajir faje nu dul leb bor bu am riba kooku foofu mu toll mën naa tax ñu may ko ko ngir ñàkk pexe gum ñàkk pexe na xam nañu ci lislaam ne euh, li yàlla tere ku dem ba sës ba ñàkk pexe bu bu ko defut loru lor ju mag fekk ko ca danañ ko may mu def ko rek ngir mucc ca lor joojee te daal di bàyyi kon nit mën naa àgg foofa loolu nag ni da koy xam digganteem ak yàlla mooy xam ne fii ma toll daal nangam munta ñàkk ci man ci yooyu nga xam ne ay yitte la yu munta ñàkk waaye nag lépp ngir leneen euh, loolu moom loo xam ne du yitte ju tol noona wala nga mën ko amee neneen lu dul lépp wala nga mën koo amee neneen lu dul lépp bu am riba boobaa doo ko sañ a jëfandikoo ñaareelu laaj bi day laaj euh, ku ne ci réew moo xam ne atteya luñ ko ci lislaam mooy sukkandiku wuñ ko ci ni lislaam tëralay atteem kooku ndax day dem di attewo ci tribunaux ya fa nekk lu mel ne sunu réew mi ci Sénégal ak li ëpp ëpp ëpp ci réew yi àddina si waaw bu dee bu dee attewu am na am na yooyu dëgg la tëral nañ ci ay atte waaye nit ki mën naa dundal boppam doxe ca boppam doxinu boppam te dara du ko ca fekk hmm, lu mel ne ay ay faseek ay takk seek ay faseek yu mel noonu am na ci réewum Sénégal ci misaal luñ ci tëral ci code de la famille waaye nit ñi mën nañoo dund seen ak dund di doxal li leen seen diina digal li fekk ñu ngi déggoo ñoom ñu ko seq rek kenn du ñëw naan leen du ngeen ko def da ngeen di ñëw tënku ci code de kenn du leen ko wax kon boobaa loola la lañ man loola nañ cee doxe noona du ci tënku la leen yàlla digal li li jëm ci àtte yoo xam ne ay daan lay tege nag yooyu moom nit ki mënu koo defal boppam loola moom am réew rek ko mën a taxaw di ko taxawe yu mel noonu nag ku ci am jote moom mënta ñàkk a dem ci yoon wi fi nekk kuñ kuñ ku ku nit bañ koo fay ki ñu ameel bor bu waxtaanee seet ay ay nit ñu jéem waxtaan ak moom yooyu yëpp sottiwut dem ca yoon rek lay man ku euh, jël alalam lu mel ne sàcc kuñ sàcc foofu lay mën a dem xeeti réero yi am daal te mënuñ koo lijjanti nii ci njekk dem ci yoon wa fa nekk rek la ñuy def ak nu mën di mel nag ndax yoon wu jubut moo gën ñàkk yoon ñàkk yoon moom ak jaxasoo lay jur ak luñ naan ku man moroomam duma yoon wu jubut nag moo tane ñàkk yoon yoon wu jub moom moo gën mooy lu yàlla tëral ku ko amul te am yoon wu jubut ba tey moo tane nag yoon bañoon a am nit ki ne dañ fi liñ fi atte dëppoowut ak li yàlla tëral euh, kon man duma dem te attewu ja foofa boobaa nit ñi buñ ko xamee duñ ko jaarale yoon kum neex mu mu mu def ko lu ko neex ndax xam na ne moom du dem di boole ji ndax jàpp na ne waruñoo boole boole ci yi nekk fii loolu dem noonu atte yi fi nekk moo tane atte bañ fe nekk ñetteelu laaj bi euh, day wax ndax jigéen sañ naa nekk ci tariixa bokk teg bi borom këram nekk sañ na ko bu fekkee du yàq dara ci seen diggante bu ko naree yàq nag jaru ko bu ko naree yàq jaru ko bu fekkee daa am borom kër ba noppi door bëgg a dem ci tariixa bokkut teg bam nekk boobaa nag bu dul yàq dara ci seen diggante dara nekku ci waaye bu ko naree bu ci naree yàq dara nag jaru ko jaru ko bu fekkoon nag bi mu koy denc daa fekk moom am tarixa kon moom bu ko bu ànd ak moom daa daa daa daa daa daa jàpp ne du yàq seen diggante euh, loolu mooy ñetteelu laaj ñeenteelu laaj bi mu ne jigéen joo xam ne dafa euh, gisoon mbaax ba mu jeex waaye bi mu jeexee amul ndox moomu sangoo ndax li feeg muy am ndox sañ naa seq ak borom këram ak it ndax sañ na war naa julli xam nga ki laab war moom laab gi moo xam njàpp la moo xam sangu la bu amul ndox wala munta jëfandikoo ndox day day tiim day tiim ki jàpp war ni muy tiime ki sangu war te sabab sababi tiim am ci moom itam day tiim day tiim day tiim bu xasee tiim day julli day tiim julli bu julli jotee bu tiime itam mooy laab gañ ko santoon def na ko sañ na seq ak borom këram la ca des nag mbirum soobe moom dañ koy dindi bu fekkee am na lu ko dinde te xëy na luñ mën a dindee sobe rek moo gën a yomb luñ mën a sangoo nit mën naa ñàkk sangoon te am lu mën a dindee sobe si waaye bu dee jëmmi laab gi moom tiim da koy may tiim da koy may mu laab juróomeelu laaj bi day wax ne sëñ bu mag bi ñu sëriñ Tuubaa dafa am nett yu bari yoo xam ne nit ñi dañ koy nettali daanaka ñu ne daal dañuy wax ay nettali di askan askanale ci seeni maam wala seeni baay te léeg-léeg nettali safaanoo nuñ ciy def loolu nag lu gudd jëmmi nettali ci bopp boppam rek daa am aw yoon daa am yoon wuñ koy wuñ ciy mën a sukkandikoo Euh, ak luy tey ñu mën sukkandiku bu ay safaanoo nare am nag ñii di wax lii ñii di wax lii ñii di wax lii euh, da xam ndax wax yooyee am na ca lu tege fuleer lu tege fu leer bu ci amee lu tege fu leer nga jàpp loola bu fekkee mënoo àtte loolu nag nga maandu ca yépp te yam ci li sëñ bi bind sëñ bi lim bind moom daanaka euh, soxlaatuñ luñ ci dolli yoo xam ne ay nettali yu ñàkk leer la yu ñàkk euh, yoo xam ne xamuñ daal dëgg-dëgg fan la jógee fan la jaar ak yu mel noonu rawatina bu dee rek mu doon nettali yoo xam ne day nuru lu safaanoo ak lim bind day saxal lool day safaanoo ak lim bind boobaa la lim bind la ñuy jàpp lim bind moom moom lu lu la ne ci moom la jóge nettali yooyu nag dañ koy nettali nii rek bu nar a la lam bind dañuy yam ca lam bind bu dee nettalee ñoo nar a safaanoo ci seen biir kenn mën leen a atte itam ñu jàmbure ca yépp rek te yam ci lim bind euh, juróom laaj bi day wax ne sujoot bi nga xam ne ku jàng alxuraan baag ci bërëbub sujoot waaye fekk nag moo dajeek waxtu yi nga xam ne dañ ci tere ko ci julli nan lay def waa sujjot boobu day moog jullis eh, ñoo nuroy e atta ci wàll googu ci jamono yuñ koy def bu dee jamono ju ñuy tere julli lu dul farata la buñ ne tere julli nag mooy lu dul farata ndax sujjot bi itam du farata boobaa kon du ko def du ko def du ko def ci waxtu yi nga xam dañ ciy tere julli lu dul farata waxtu yooyu nag bariwut xam ne tere la moom dañ koy araamal mooy bu jant bi di yëkkatiku jamono ji muy yëkkati ak digg ba bëccëg muy tosbaar bu tosbaar di ko jot rek lu ko jiitu tuuti ak bu jant bi di wàcc di so diir bi muy wàcc noonu di so yooyu mooy jamono yi nga xam dañ ci tere julli lu dul farat ku ci doon jàng alxuraan ba agsi ci jaam ci fu ñuy sujoote it boo kon du ko def boo amee leen ngànt itam du ko def waaye bu ko deful nag am nañu ñooñ dañuy wax ne ku ku jàng wala mu koy déglu ndax jàng déglu ñoo ci ñoo ci bokk àtte sujjóot bi te mënu koo def mën naa jàng li ñuy tudde alba yi ni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allahu wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahi al aliyyil azim mën na ko jàng ñeenti yoon bu ko defee jàll juróom-ñaareelu laaj bi dana ci réewi tubaab yi euh, xeeti yàpp yi nga xam dañ koy conserver li ñu tuddee ay conserve lan mooy mooy atteb jëfandikoo ko mooy yàpp yi nga xam ne dañ koy defar di ko def ci ci pot wala ci ay mbuus ci nangam daal di ko jaay noonu euh, loolu de li cosaan mooy dagan dagan bu ci réewi tubaab yi yàpp fay liggéey di ko jaay noonu te yow amoo lu la wóor ne lu la wóor ne eh, na na na na na na rab yooye dee nu lislaam bëggut la nu bëggut na mooy rendi wuñ ko rek buñ ne rendi nag mooy dagg si diid ba deret ji bu fekkee amoon lu leer ca loola santuñ la nga gëstu ko da ngay euh, doxee la lay cosaan rek ndax lay cosaan mooy loolu la noonu la nit ñiy def kon mën nga ko jëfandikoo boo amaloon sa bopp nag sa xam bopp ci lii moom euh, rendi ko boobaa nag doo ko jëfandikoo waaye ko ci amul rek kenn sant la nga koy gëstu mën nga koo jëfandikoo juróom-ñetteelu laaj bi mu ne lan moo jotale lan mooy diggante dal uh, eh, ak morit ak li ñu tuddee suufyànke ñu tasawuf uh, nuñ doxe dal seen diggante nuñ deme ak morit day moo moo jafe wax mooy lan ci man ci man waaye ni ma ko déggee man dafa gën a yaatu dafa am mbaalit maanaam tasawuf daa nekk ci biiram manam ak morit lu yaatu la ci biiru morit nag tasawuuf am na ci mooy sëñ bu mag bi dafa ñëwoon di yeesal lislaam di ko yeesal ci biir yeesal gi nag jumtukaay yi nga xam ne itam euh, lislaam andi woon na ko ngir dund diine jumtukaay yooye yu ca baax rek da ko ci dugalaale te tasawuuf ci jumtukaay yooyu la bokk jumtukaay yi nga xam ne E, l'islam andina ko wer dundu dine tasof cila bakku ma tax tasof duggu ci biir murid gi nit mën na ko xoole feneen moom jàpp ne tasof moo ëmbu murid gi waaye man murid gi ëmbu tasof laa jàpp mooy ci biir murid gi sëñ bu mag bi am na ci ñum daan jaarale yoonu tasawuf am na ñum ci daan jaarale moom ci boppam jaar na ci moom jaarale ci ñim doon yar itam ñim doon yarit jaare la ca ñañ daan yar waaye nag wéyewut noonu fi mu ne nii moom mbooloo mi ëpp ëpp ci murid yi moom dëgg-dëgg nekkuñ ci ta sawuf mooy dunduñ ko xamuñ ko sax ba koy dund te teewut ay murid lañ ndax sëñ bi mbiram dafa gën a yaatu loolu ku mën a dund tasawuf mën naa nekk ci biiram ku ko mënta dund wala xamu ko sax nag waaye di dund lislaamam kam kàttanam itam ba tey mën naa ne ci biiram moo tax kon tasawuf dama naan man ci biir murit gi la bokk wala murit gi euh, dugal na tasawuf ci biiram mooy jëfandikoo na ko mu doon jumtukaayu euh, dundu diine waaye ku nekkul ci tasawuf itam du tey mën a nekk murit te loolu mooy li ëpp ci daanaka ginnaaw bi sëñ bi ba nag juróom ñeenteelu laaj bi mais dafa am ci taalibe ñu ci ci biti bitim rew nekkuñ senegal dal waaye bu dee ay koreek tabaskeeg yu ni mel dañuy sukkandiku ci Touba duñu deglu euh, ñañu bokal rew ya ñu nek da melne mom ag na sax ci ne sëñ Murtala mom bu daan tukki sax daana digal nit ñi ñuy and ak euh, ñene ci julit ñi nek ci rew ya ñu de amna, daana ko wax ta lool tam nak moy li jaadu lool moy li jaadu mbirum weer nit ki fi nekk la ci sukkandiku ñum nekkal wuute gi ci borom xam-xam yi am kay mooy ndax nit ki day sukkandiku ci ñim nekkal rek wala day sukkandiku ci ñim nekkal ak ñeneen ñëpp wala ñu leen gën a yaatu waaye moom jéggi leen moom bañ leen a déglu moom kenn kenn kenn amul sañ-sañ boobu ñi nga nekkal nga bañ leen a bàyyi xel moom ci wàllu Euh, weer séentu bu ñuy séentu weer xanaa di déglu feneen di leen jéggi di déglu feneen moom loolu moom kenn kenn santuñ ko kenn jaaduwut jaaduwut xanaa dañ naan kay ndax da ngay yem ci ñoom rek euh, walla da ngay sukkandiku ci ñoom waaye di sukkandiku itam ci ñeneen ba ñoom buñ gisutoon te ñeneen gisit nga ànd ñeneen ña waaye ñoom buñ gisee itam nga ànd ak ñoom waaye nag moom doo sukkandiku ci ñoom waaye da nga sukkandiku ci ñeneen moom loolu jaaduwut loolu jaaduwut loolu moom ku koy def it ñàkk xam la ko teg waaye kenn diglewu ko ndax noonu nga ko waxee ne moto Murtala da leen daan digal ñuy ànd ak jullit ñi ñu bokkal ne ci réew yañ nekk ci weer yi loola noonu ko daan defe te loola itam rek mooy mooy lu jaadu fukkeelu laaj bi te mooy mujj ci bi ñuy tontu tey yi tontu tey mu ne koo xam ne dañ doon miraas li muy faral di amee rek léeg-léeg yére yi dañ koy dañ koy def ay saam tegoo ko bant ndax du ne du du noonu daal lañ koy séddalee faral di séddalee yére yi nga xam ne ki fi jóge moom la fi bàyyi ay ay yére yu mu daan sol dañ koy def ay saam euh, xayma ko nag saam bu ne ñu ne nangam lañ ko xayma ci xaalis tegoo ko bant ku nekk bantam bu dal mu jël loola fay xaalis ba fay xaalis ba nga xam ne mooy mooy mooy mooy mooy kii boobu mooy saam boobee mu ne biñ ko defee nag am koo xam ne biñ ko jëlee biir yére yooyu da caa fekk xaalis xaalis boobee kan moo koy moom ndax moo koy moom wala dañ koy dugal ci miraas mi koy dugal ci miraas mi ndax ba ñu tegoo bant jubluwuñu woon jubluwuñu woon lañuy saam lañ doon saam jubluñu woon boole ci xaalis dañoo jàppoon ay yére kese la kon ay yére rek lañ jublu woon a saam xaalis bi nag kon day mel ne rek buñ doon miiras am xaalis bu feeñ boo xam ne xamuñ ko woon rek mu feeñ bu feeñee dañ koy dugal ci miiras mi rek lii noonu rek la mooy day am xaalis buñ buñ buñ buñ xamutoon ci biir miiras mi nag mu feeñ bu feeñee dañ koy dugal ci mirage mi rek ku ko man di feñal da feñe ci yere yi ci sam bi nga xamni ne sangam mi la ci bantam dal mu feñe ca bu ca feñe itam ki fi joge moko mom ginaam ki fi joge ko mom nak kon ni mirage ñepp koy bok kon dañ koy dugal ci mirage ma waye du ki ca bantam dal mo koy mom ndax jubluñu ñu wona sam ak xaalis yere lañ doon sam waaye nag ñu ñu gisee ca xaalis boo xam ne yëguñ ko woon xamuñ ko woon dañ koy dugal ci miraas mi yi yi mooy laaj yi nu bëggoon a tontu tey ci sunu jotaay bu njëkk noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jéggalu ñëpp wasalaamullahi aleykum wa rahmatuhu wa barakaatu.